xam ne aussi muy lu am solo mooy justice ndax justice sénégalais yi demoon nañ ba découragé désespéré du justice njarutoon ngay dem yoon bu fekkee ne amoo doole bu fekkee amoo relation bu fekkee amoo bras yow xam nga nañ lay atte président Bassirou Diomaye Faye woote assise nationale ñun ñi teewoon nañ fa ñëpp ñëw ba ci ñi nga xam ne dañ leen yoon daf kas euh, caabi daf leen féete woon ginnaaw ci condition yi nga xam ne moom la ñuy dundee ndax nit ki nag bu nekkee détenu aussi être humain la donte aussi détenu lay doon parce que du watal non plus ku ne ñëw nga ma profité ci wax ne man la ma gis ak la ma jàpp mooy li sénégalais bëgg mooy mooy justice bu tëddee jaaxaanaay loolu nag pour mu am président de la république man dama gëm ne mooy suma position en tant que Aminata Touré te defe naa ne partage naa ko ak tous les membres du mouvement mooy président de la république mën naa continuer di présider waaye waratu la désigner ni juge ni procureur loolu dañ koy jox comité boo xam ne ma nga ca biir ñu seet ñi mérito ñu seet ñi nga xam ne am nañu éthique ñi nga xam ne kenn mosu leen xam ci lu ñu leen di xeebe ñu jox leen promotion mu am équité waaye nag aussi man li ma d'accordul muy suma position muy yëf yi di am rek ca biir entre juge man dama jàpp ne par exemple foog mu nekk fa ndax nag c'est fii Sénégal la aussi danoo am faiblesse sama doomu bàjjen kii ñoo bokk voilà fa ñu dëkk nangam nangam yooyu nag il faut que président bu fa toogee moom la cay doon cëram mooy mu vérifier na lañ fay dogal méngoo na ak yoon mooy mission de contrôle de validi validation contrôle waaye du ne jël leen procureur diw la ma ko sant defu ko sànni leen ko fu sori waaye nag boo demee fu sori xamal ne Sénégal la sax loolu tax da dul sanction di nuyu suñu mbokk Kédougou yi ñu mbokk Matam Ouro Sogui euh, voilà ñi ne ci périphérie bi des sénégalais à part entière ku ñu fa affecté da ngay xam ne Sénégal nga nekk jéggiwoo frontière man looloo ci suma position ci wàllu justice bi président nag moom mooy décider waaye ñun nag buñ dee ay alliés yi aussi dinañu wax leenu xalaat parce que jàpp naa ne euh, il faut aussi que suñu justice bi mu am ay contrôle la ma dégg aussi mooy ci wàllu éthique proposition yañ ca def yooyu it ñu ngi koy soutenir bu baax a baax a baax foo xam ne fii fa la ñuy wóore ne ña ne ñooy saytu ne lii ñuy def méngoo na ak yoon ca biir justice ndax nag gis nañ fi yow lu ne ci justice premier président bi ak premier ministre bi neuf jours après départ la campagne dañ leen libéré ci ay accusations yoo xam ne ñëpp xamoon nañ ne politique la loolu warutul waratulaam kon loolu mooy li nga xam ne vraiment ñu ngi koy saluer ñi nga xam ne nag ñooy sama waa APR waa Benno ña gën a wax sax ci rek conférence de presse bu mujj bi da ña ma ca dégg Macky Sall ci boppam mosu leen a def ministre ak portefeuille mosu am def mosu leen a def ministre ak portefeuille di ngeen fi dégg lu ne nag ndax fi mu ne nii concours xaxar la parce que la ñuy ku ci nekk mooy ñu def la ca liste nationale ba waaye ca conférence de presse ba parce que nag am na ñoo am maanaam APR aussi ak lu ñu nekk opposition teguñu fa seen tànk ñoom sax ña ngay accélérer la cadence ca génn parti ba te waaye nag wax dëgg yàlla ñoom. Macky Sall ba muy dem tàgguwu leen gan yi ñëwoon sax moo leen njëkk dem président Ablaye Wade ba muy dem réunir na parteem gërëm leen sant leen voilà ñaax leen ñu dem parce que nag aussi li ñu war a xam te man muy sama conviction ndax foofa nag xam naa la fa xew ak la fa daan xew mooy lii nga xam ne moom la ñuy jéem a def mooy casser le moral casser le rythme comme ci football rek buñ la dominer dominer dominer dominer dominer sëpp la ci camp yi sëpp la ci camp yi arbi lañ lay wax mooy fàddal voilà Sadio Mané fexeel ba du jege camp yi ndax sonal nañu arrêtel attaquant bi ci yooyu lañu ne muy ay tentative vraiment pour casser le moral des Sénégalais ci nag yoo xam ne yi ay information yoo xam ne méngoowul ak la réalité tey bu fekkee ne dañoo dem waa APR yooyu ca permanence su Macky Sall di fa conférence de presse parce que moo leen ko sant foofu benn caabee fa am amut ñaar amul ñet mooy ubbi mooy wax ku fay ñëw mooy génn mooy tëj kon activité yi moom moo leen ko sant à de fa mu ne moo xam muy France te dem naa France la loolu muy Maroc ñi mu bokk ña doon wax yàlla def na nag comme xam naa leen bu baax a baax kenn du ci jël sa initiative bu bopp di def loolu ñoom lañ leen sant la leen Macky Sall sant moom la ñuy def duñu ca yokk virgule duñu ca wàññi virgule ñu sawar gi nag ñu ci bëri sawar gi mooy li ma leen wax xaxarkat yeeg comité d'invective et d'insulte yeeg parce que ñoom ñëpp lañuy ñuy carte mooy place ca ca liste ba législative ndax kenn nu cee gajal sa bopp dem leen waat ci résultat yi seet kenn gagné ci bureau de kenn d'ailleurs comme la plupart des députés a moo tax ma ne man assemblée nationale dañ ko war a dissoudre ca at ca jour bañ leen fale ca la mot ñaari at ñu dissoudre ko parce qu'elle n'a plus de légitimité légitimité bi ci élection 24 mars yi ci lañ koy natte député yooyu ku ci ne ca gox ba nga ne dañ la ko dóor dóor yu metti sax waaw daf ma doon premier ministre Ousmane Sonko du ma fa présenter DPG damay xaar ba assemblée bu bees ak député yoo xam ne yii vraiment euh, ñoo nga soxsoo ñoo nga ñoo nga ñoo nga am légitimité populaire parce que dañ leen a fol fal pour cinq ans bu ko defee man ma dem présenter ndax boo ma présenté it mën naa la wax ni député ya nga fay fekk ñoom ñëpp ci assemblée bu bees bi doo leen gisaat ah da ngay defaat beneen DPG ndax ñu xam voilà li nga li li nga bëgg a donc pour man président Macky Sall moo ne France di leen jox ay instructions parce que nag lu ne def na ko fi pour am troisième mandat ba ñu paree mu ne report de l'élection parce que bàyyiwul man loolay sama conviction moom li mu bëgg mooy voilà wax leen voilà donte li ngeen di wax sax sori na dëgg wax leen rek bu ko defee ngeen jaxase xelu Sénégalais yi jaxase xelu jeunesse bi. bu ko defee man ma am porox porox ndoll bu ma mën a jaar pour seet nu may ñëwaate loolu mooy stratégie bi comprendre nañ ko de comprendre nañ ko bu baax a baax a baax te loolu du fi prospérer d'ailleurs sax président Macky Sall patron am sax la ñuy interpeller fii parce que moom Macron lay liggéeyal moo signé contrat il faut que président Macron wax ñu qu'il nous dise parce que dafa am incompatibilité mënoo nekk chef d'un parti de l'opposition ak parti rek d'une manière générale avant muy dem la exiger ñu fal ko président wu APR yéen a ngi koy fàttaliku avant muy dem ba noppi nag bëgg a nekk envoyé spécial de Macron loolu bu continuer dañuy jàpp ne France moo ko ciy jàppale France mooy def une immixtion dans les affaires intérieures du Sénégal donc voilà interpellons directement le président Macron ou le président Macky Sall est votre envoyé spécial à ce moment-là il démissionne de la tête de son parti l'APR ou alors il démissionne du poste d'envoyé spécial qui le coûte de vous pour, à ce moment-là, continuer à diriger son parti. Les deux ne peuvent pas se faire en même temps. Et si cela continue, nous considérons qu'il s'agit d'une émission grave de la France dans les affaires intérieures du Sénégal. Voilà ce qui doit être clarifié, Monsieur le Président Macron, sans délai. et puis président et sax foog ñu xam parce que loi bi nee na dañ koy fay 9 millions nañu wax est-ce que mu ngi fayeeku 9 millions yi nañu wax est-ce que ma nga ak aide de camp ba garde corps bi sur les frais du Sénégal pendant que vous travaillez pour le président d'un pays étranger loolu musul am musuma koo gis ci àddina te moom nag moo doon le commandant en chef de nos armées suñu secret militaire yi moo ko yor suñu cartographie de ressources moo ko yor xamuñ lu mu cay def nag mais moo tax ñu koy fay en tant qu'ancien président pour que vraiment mu mën a toog noppalu bañ a dugg ci yoo xam ne yii vraiment du cëram kon loolu interpellation bu ñu koy def la bu fekkee da jàpp ne soxla soxlatoo statut ancien président ak la mu àndal kon tegal pay mi tegal garde yi tegal aide de camp bi tegal lépp dem nag sa naataango bu woon di la fay comme sa droit la sa décision waaye ñaar ñi moom mënut a